Mbaye Gale. waaw namu naa la. Mbaye Gale. ay seex daal le douze daal bu baaxee yow. Mbaye Gale. bu bonee <laughs> ma ba ne Gale. kenn laa choisir. muy Seex moo ma sax. jërëjëf Mbaye Gale. moo si yi Gale. Mbaye Gale. Mbaye Gale. Eh. Eh. première parti bi première partie bi. yow yaay dem yaay dik yaay jàppante. waaw waaw naan eh eh, eh, eh. eh kii moom yow modéré woo doo ñëw yow doo ñëw Modou Oustaz Modou Fall mooy modere Oustaz Modou Fall mooy modéré <laughs> yow modéré woo Modou Fall lay modéré. <laughs> yow te oustaz Pape Hann ci xol beneen oustaz da cee xajul. mais mais wuy ma. buruxal ko. naa ko delloo si naa ko delloo si. nañ dem si kàddu gi sa yaay yëpp day jox day jëmee télé. te leen bàyyi sax maa mel yu ne ma ma am un million. dem kër dem tuuti tuuti affaire yi. affaire bu day baax. di ko jaay jaay ko bi. waaw ay sarku garmi dañ koy jaay ci bunt bi. ci bunt bi ay produits dérivés garmi. ak maanaam écharpe na biir. ak lan ak lan. lan kaamil na ma jeena Madiana Dienouche Madienouche yow poussel fii yow eh pousse-toi de là je prends Madienne mais elle est mais tu es glam eh mais regarde-moi chérie regarde-moi mais regarde-moi mais regarde-moi code bi tey jaune vert la jaune vert jaune vert beaucoup de vert une autre couleur que je ne connais pas orange <laughs> orange merci Mama Louchette <laughs> président président Cuba!